auzu billahi min alsheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul huqdatan min lisaani yafqahu xawli asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu